dal leen ak jàmm seen Facebook info ubbil Facebook bi li ci gën a fes Sénégal bi mu moomee boppam njiitum réew bu Sénégal doon wax ci bataaxal bi muy amal at bu nekk le trois avril li liñ ci gën a jàpp mooy li mu wax jàngalekat yi njiitum réew bu Sénégal ci page Facebook a muy sargal takk deri ak ñëpp ñu jàpp ci défilé bi ngërëm googu la Taïb Socé def bi mu génnee prison ci njégalu président de la République le 4 avril majorité lycée jeune fédéral Kennedy yi doon sargal seen maam Doudou Ndiaye Rose ci seen défilé Babacar Mbaye Ngaraaf coordinatrice alliance Sauver le Sénégal moo ñuy wax ne Alioune Sall maire bu Géejawaay rakk ci njiitum réew bu Sénégal da doon fay ay imam ak ay chef de quartier foofu ci diwaanu Géejawaay 50 000 pour ñu voté lu wii Paco Jackson Thiam taxawal benn mouvement bu bees bu tudd Sénégal laa gëm Dakar dem dikk di wut ay receveur ak ay conducteur pour seen ma dara di waxu fii ci Facebook bi le 1er avril ba le 30 jël ñaar fukki nit par bis leen faj ci wàllum hémorroïde ak ndoxum siti jamono yi ñuy wax ak yéen maa nga ñor na ca diwaanu Kolda ak dëkk yi ko wër ñu sàkk ci njiitum réew mi ak gouvernement bu Sénégal ñu jàppale leen ci lépp lu mën a transformer mango yi Wally Ballago di invité Pape Diouf ak soxnaam bébé Bass le 4 juin foofu ca diwaanu Bercy Mimi Touré yoon woo ko le 18 avril cour d'appel moom mu tontu ni haute cour de justice rek moo koy dégg en direct foofu sa seen TV diggante Yaama ak mbay ci seen émission yendu leen bu kenn aaye sàngara di waxu Buuba Nduur ci kanamu Xalifa Jaxate Youssou Ndour am ndam ci soirée boobu mu doon defal xale yi doon wéyaale jàngaru feebaru xol mbër bii di Bombardier ak ay xaritam seen oto doon tàkk foofu ca autoroute à péage ba kenn gaañ xibaaru bitim réew frontière Sénégal Gambie diggante transporteur yi indi benn suuxe ca koom-koomu Gambie weddi gis bokk ci Russie doon sargal président Lamine Diack ak Massata Diack Mamadou Diagne di taximan bi ñuy faat foofu ca diwaanu Amérique yoon am ku mu teg loxo Guantanamo lëkkaloo ak Sénégal envoyé ñaari doomu Libi fii ci Sénégal compte offshore foofu ca Panama gën a dugal doomu Ablaye Wade jii di Karim Meïssa Wade fi leen di tàggatooyee mooy li kenn mësul gis défilé xar ak ay bëy foofu ca diwaanu Ourossogui jërë ngeen jëf ba suba incha allah.